kon itte jooju dañu bëgg a jàngat ñuy wax ne dogale yàlla yi suñu borom dafa am lu muy dogal loo xam ne yoonu doomu aadama nekku ci nit mënu ci dara dafa am dogal yoo xam ne yoonu nit newu ca muy nit ki fa muy juddoo yoonu newu ci daa jekk ci gis bopp ne foofu la bokk rek nit ki famille ba mu bokk kër yi ko sosu ko itte mayu ko ko dafa jekk ci gis ci bopp noonu rek gàttaayub nit ki ak guddayam ab xeysayam ab ñulayam ab rafetaayam ab ñaawaayam lolu yoonu doomu aadama néew ci lolu moy dogal yi nga xamne sun borom daf koy dogal te yoon nit néew ci way dafa am yeneen dogal yo xamne daf koy tek ci pass pass nit ki ak item dogal yooyu muy dogal nak te tek ko ci pass pass nit ki ak item nga xamne sabab lay am koku nu nit ki amee itte rek non lay amé résultat nu ñak ité non lay ñak résultat lolu def ma xamé jamono bu lu melni sàkku xam-xam ak jaamu yàlla gu bari ak wàllu commerce moo xam da ngay bay moo xam da ngay càmm sàmm moo xam loo mën di def ci àdduna di ko lijjanti am na ci yoo xamante ne ittey nit ki moo koy jàllale fu mu àgg moo ko fa àggale ak ñàkk ittey nit lu mu ci ñàkk moo ko xaj yooyu dafa mat di xàmme itte nag dafa dikk lu bari ci mbindum Sëriñ Tuubaa mu di ko tudd Isaa day wax day tagg saxaaba yi ak sëriñ su njëkk si ci itte ju kawe di wax ne kullun lahu himmatun yarqa biha abadan ila hazizin muizzin zi futuhat kenn ku ne ci ñoom de am na itte ju kawe joo xam ne ci lay jaar ci itte jooju pour àgg ci ci ci suñu borom yiisa sëriñ bi di melal boppam ci ñàkk itte ci ni ko ahlu tasawuf baaxoo defa muy toroxlu seen diggante seen borom di wax ni tanaamu ayni wa qalbi kulla azminatin wa himmati lil maali xayru murkinati sama xol ak samay bët de jamono bu ne day nelaw te samay it mës a jóg mukk jëm ci sàkku yu kawe mu wax ko ci anamu toroxlu sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana ci Irwaawu Nadim dafa wax dafa wax ne kenn ci kilifa yi sëriñ si ku ma doy moo ma nettali nan la wax ne sëriñ bee ko ni يونتبي المو فوق أن تكمل جهرا نكو ربي أصحابك بالهمة ستالبي نجلن يرتي إتي ولا تربيهم بالدرس كون دانجلي خير يارين واي سرين بي دفجل إتي موي خير يارين ويفن لول لن ñi am jom ñi ëpp jom ñu di leen ulul azm mi mooy borom itte yu kawe ci yonente yi na nga amee jom nañ amee woon jom fasbir kama sabara ulul azmi min ar yu kawe ci yonente yi nañ amee woon jom di muñ na nga amee jom noonu loolu yàlla moo ko digal yonente yàlla di ŋàññi ñi ñàkk itte di wax ne wala na salaata illaa wahum kusaala saa bu ñëwee di julli si ak taayal la ñuy wala yunfiquuna illaa wa hum kaarihuuna bu ñu demee bay financé seen alal ji eh, ci ak ñàkk say bañ ni ñu ko def waaye neexu leen kon loolu yi sëriñ bi wax ci ite ak noonu yàlla digale yonente bi mu topp ulul azmi min rusul ak noonu mu ŋàññee ñi ñàkk itte laaj na ko ñu jàngat lan mooy itte itte mooy lan dëgg dëgg mooy lan bu ko bu ñu koy jàngat am na benn borom xam bu ñuy wax Ibnul Xayyim dafa wax ne itte dañ daan wax ni mooy njëlbeenu murit murit bala moo bala moo am iraada xëm xëm mu lay jëkke waaye nag ginnaaw bi altasab dañ ko jagleel ni mooy yemukaay bi mooy yemukaayu iraada kon sëriñ bi bi mu ñëwee fekk na nit ñi di jàng alxuraan di jàng xam-xam di jaamu yàlla waaye itte ji mu leen jàngal nag mooy nañ weesu ay wax te sóobu ngirum jëf kon itte bu ñu ko waxee mooy ni sëriñ bi àndewoon ak murid yu jëkkee mooy jiitu di dox ñu topp ci ginnaaw jàpp seen loxo ñuy dox moo tax sëriñ Saliou di ko leeral leeral bu gàtt di daan wax ne yoonu murid du yoonu dem leen ma ñëw waaye yoonu ñëw leen ñu dem la kon itte bu ñu ko waxee ndeke mooy soobu jàpp ci loxo yi nit ñi ngeen ànd dox dem lu ma itte mooy li nga li nga bëgg nga taxaw temm ci lu la ko may loolu la ñuy tuddee itte. bu ko defee nag di ñaar dafa am itte ju kawe ak itte ju suufe ju gàtt lan mooy itte ju kawe itte ju kawe mooy lu mën a doon nga bañ a bëgg yu ndaw ndawaan yi bëggal la ca kaw bu ñëwee ci ab société bul bul bëgg a doon lenn lu dul directeur bu fekkee ne dangaa ñëw fekk ñuy xëccoo am réew bul bëgg a doon lenn lu dul président naka noonu bépp martaba bu ñuy sàkku ci yàlla bul sàkku yu ndondowaan yi seetal li ci gën a kawe te jombut nga nga nga sàkku loola ci yàlla léegi nag maraatib yi ñuy am ci yàlla liñ ci xam ak nubuwa moo ci gën a kawe muy mursaloon yi waaye buñ jàllee siddiq moo ci topp te siddiq boobu góor mën na ko nekk jigéen mën na ko nekk kon yàlla xañu ko kenn kon nit kuy sàkk ku ne seet li gën a kawe ci li war sàkk nga sàkk ko loolu la ñuy tuddee itte ju kawe moo tax yonente bi ne noonu bu ngeen dee ñaan yàlla ñaan leen ko si ndax si moo gën a kawe ci aljanna yi ida saaltumullaha fasaluhu al firdawsa al a'la kon borom itte ju rëy dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni lu mu doon du bëgg yu tuut tuutaane waaye li ci gën a kawe lay seen mu mu mu dëgmal ko bëgg ko nag lu ko ca fekk baax waaye itte ju suufe mooy itte yii nga xam ni maanaam mala yi ci lañ nekk damay wax nit li fekk itte mi ngi ko aj ci lekk naan ak defar kër gu rafet ak fexe ba saytu ak njabootam di leen faj ak aar na xam ne weesuwagul matlaw picc yi ndax picc yi danañ fexe ba lekk danañ fexe ba naan danañ fexe ba defarum tàgg pour aar sunu njaboot kon nit soxla nañ ci moom mu am itte bu gën a kawe boobu na wees foofu loolu la Sëñ Tuubaa soxloon ci ay muritam mutanabbi benn woykat nee na isa isa gaamarta fi sharafin marumin فلا تقنع بما دون النجوم بودني باي ريس بوب دي ووت تيدغا فخيل با بو فكي سي كاوغي جيم دال بول بول تاخاو موكو تا اغو سي بيدوي سيتال دي سي غنا كاوي غادم ساكو لول رك واي ديغنتي بول سول دال فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم نخك ديموم بو خاسي بي نيو nga don sakulu kawe ba de ci ak ngay sakulu tuuti ba de ci ñam kep motax wala fi di wax ne kuy de ci all na la gay ndere mooy da ngay seet li gën a kawe nga bëgg ko ba loolu say fekk fekk la yonente bi di soññee jamono bu ne ci itte ju kawe di wax ne yàlla day li mu gën a bëgg mooy mbir yu rëy yi waaye yu yi da koy bañ jullit bu am itte ju kawe nag ñetti mbir lay boole ci ab doxam day xër première fois ci njariñ waxuma njariñul boppam de li wolof yi wax naan njariñ loo fekke loolu lépp ñàkk itte gab lay rek ku am itte day fas yi njariñ am même boo ko fekkee lu baax lépp luy jariñ doomu aadama yi ci seen adduna ak ci seen alaxira nga di ci yëngatu même boo ko fekkeewul baax waaye boo nee njariñ loo fekkee boo ko nata fekkee génn ci loolu ñàkk fas yàlla ñàkk itte lay teg ma ne boroom itte buy dox ñetti mbir dana ko boole day xër ci njariñ dimbali ko yàlla ak ñàkk tayal ñàkk décourage ñett yooyu ngay boole la ngay sàkk ndax fi ñu toll nii ñett ngi yoo xam ne ñu ngi waaye farlu bokkut ak jom xaw xamee ngeen comme déet ñett ak farlu ak jom bokkuñ itte nga seet lu kawe nga acc sa itte soxla ko farlu mooy nga jox ko la nga mën lépp ci temps ak ci coono ak ci finance pour jot lan mooy jom jom mooy la cay metti nga di ko muñ lu metti metti nga muñ doon bokkul te loolu nag la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal mooy ihris ala ma yanfauk wastain billahi wala taajis mooy na ngay farlu ci lu lay amal njariñ tey dimbali ko yàlla te bañ a tayal bañ a découragé kon ki am it ju kawe ngir mu àgg ca itteem joojee fokk mu boole ñett fokk mu mu dimbali ko yàlla fokk mu farlu fokk mu muñ bu loolu du àgg te itte ju kawe nag mbooleem ñi mas a jàllale ci àdduna mbaa ñu taxawal fi dara itte ju kawe jooju la yem taxawal ko ba ci ba ci réew yi ñu nekk rek réew tubaab yi rek lépp lu ñu taxawal ci àdduna itte moo leen ko taxawal taxawal moo tax damay wax ni jullit bi ñëw fii ci réew tubaab yi dafa dund am na ñaari mbir yuñ ko sant muy na indi jikko jëm yor bañ xeemeem ko ngir mën koo jël waaye na seet lañ fa rawee mu jël ko yóbbaale mooy tam ko fële muy itte ju kawe jooju dañ ko war a jàngee ci ñoom indil leen it pas-pas bu rafet te itte ju kawe moom moo borom itte ju kawe mooy fekk nit ñi di nelaw mu yee leen mu yee leen bañ xam ne fii ñu nekk baaxul dañu ko dañu ko war a weesu itte ju kawe mooy tax nit ki kenn nit képp dem ba mel ni mbooloo mel mën a ci junni nit inna ibrahima kaana matan قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين Ibrahima sunu borom dafa wax ne ab nation la aw xeet la te léegi kenn la waaye itam jikko moo tax mu mel ni mbooloo wa qiila rubba rajulin ka alfi wa rubba alfin qiimatan ka uffi am na benn waay boo xam ne dana taxaw taxawaay junni nit waaye nag mën ngaa jël junni nit yoo xam ne it boo leen doon peese ñoo seroñe kon loolu mooy itte ji ñu doon wax lan mooy itte dëgg dëgg dëgg mooy itte loolu mooy itte tomb ñaareel bi mooy lan moo xaajale diggante itte ju kawe ak mébét yu bari itte ak mébét ndax gis nañu ahlu tasawuf di tagg borom itte yu kawe gis nañu leen ñuy ŋàññi mébét yu bari gis nañu leen ñuy ŋàññi itte ju suufe gis nañu leen it ñuy tagg gàttal ay mébét kon léegi lan moo xaajale diggante itte ju kawe ak mébét yu kawe lan moo xaajale diggante ñàkk itte ak gàttal ay mébét loolu daa mat di jàng jamono bu ne mu mel ni itte ju kawe buñ ko waxee mooy li la tax li nga bëgg nga nga seet la gën a kawe nga aj ko ci ba noppi nag buur jëm ci mébét nag bu ñu ko waxee bu ñu nee mébét lu ci ëpp moo ko àdduna ñooy lëkkaloo mooy nga yemale ko ci àdduna képp gàtt gàtt itte lay tekki ñaareel première fois ñaareel bi mooy mébét ki koy def lu ci ëpp du jóg dox mètre pour am am li mu bëgg day bëgg a toog di mébét rek lu nit am mu jàpp war na ko am te yëngutu yëngutu ci kon itte ak mébét bokkuñ mébét dañ koy bañ itte nag lañ soxla ci nekk moo tax yonente bi ni al kayyisu man daana nafsa ke muus mooy ki not bakkana wa amila lima baada al mawti te jëf ngir ëllëg wala ahmaaqu nag man atbau nafsa wa hawaaha wa tamannaha lil amaani ki nga xam daa dof nag mooy ki nga xam ne day tofal topp bakkanam ba noppi lépp lu bëgg lu am mu jàpp ni war na ko am kon mébét mooy di bëgg rek ànd ak toog di xoole itte mooy li nga bëgg nga ni ñokket taxaw fas yéene mu taxaw moo tax mébét yu gudd ak xër ci àdduna yonent bi da koy faral di boole di wax ni ñeent ngi yoo xam ak texee di lay tekki muy wow bët nit ki dem ba ba bëtam wow dootu dara mën a tëggante ne ak rankoñam loolu nee na ak taxay di ci nit ki naka noonu xol bu wow naka noonu mébét yu gudd ak xër ci àdduna yépp nee na ak taxay di lay teg ci nit ki day sonal nit ki waaye nag ñaari mbir ngi mat xam ne àdduna ak alaaxira lan mooy àdduna ak lan mooy alaaxira àdduna aw yoon la ñuy romb di jàll alaaxira mooy dëkkuwaay bi nga xamante ni mooy saxwaay ba fa la nit ñi jëm jullit dañuy bëgg rek xam-xam bépp mu tënk ko xam ni àdduna ab jaarukaay la àllaaxira fa la jëm mooy dëkkuwaay boo fee nag ci kaw noonu mu xamee ni fii aw yoon la fee ab dëkkuwaay la muy jëfe noonu jëf lu toll ni da ngay jëf ci aw yoon woo romb di jàll lu toll ni li nga soxla ca dëkk bee nga jëm nga nga di ko liggéey pour mandat ko mu dem foofu waaye nag liggéey ngir àdduna ak liggéey ngir àllaaxira yi daa ma tax xàmmee nag tuuti ndax liggéeyu àdduna mooy buñ ne àdduna mooy commerce ndax mooy bay ndax mooy sàmm ndax mooy jàng ndax mooy nangam ndax loolu mooy liggéeyu àdduna bu ñu ne alaxira ñu ne kon mooy dem kàbbar di julli di woor di jàng alquran yor doolu xasida di sikar ndax loolu mooy jëfi alaxira ñu ne déedéet jëfi jëf ji ngay sàkku àdduna même jëf ji ci mooy yoon wi lay yóbbu ci alaxira fa amut ñaari yoon amut yoon woo xam dinaan yoon wee moo jëm ci àdduna yoon wi moo jëm ci alaxira wenn yoon wi moo jëm ci àdduna moo jëm ci alaxira kii dafa gàttal ay itam yemale ko fii kii guddal ay itam yemale jëmale ko fële waaye waaye duñ duñ ne rek àdduna nga ni kon ba ci xëy dem ci marché ba di liggéeyee sax mbirum àdduna la déedéet bul jàpp mbirum àdduna la jàppal ne yoon woowu ngay wutee àdduna ci la ñuy wutee yàlla demal ca marché ba commercial demal nga bay demal nga sàmmi fexeel ba am alal fexeel ba am xam-xam ba noppi nag sa hëdëf na doon ngërëmul yàlla mooy loolu boo ko fabee na nga ko wut pour wutee ko ngërëmul yàlla te loolu it lañ gis magi murid yi ak doomi Sëriñ Tuubaa yëpp soobu ko ndax ku ne xam na ni gor suuf su yaatu jënd jënd matériel ci lu jege milliard jël alal ju bari investi ko ci dara loolu doomi Sëriñ Tuubaa loolu la gisuñu ko def Sëriñ Saliou bu bëgg dema ñaay la fi jóge jënd ñaar téeméeri tracteur ak nangam te wutu ci lu dul ngërëmul yàlla te kii wut àdduna noonu la ko wuti moytu kon yoonu àdduna yi ak yoonu àlaxira yoon lañu la ñu wuti mooy pas-pas pas-pas moo dox ci diggante bi pas-pas waaye jullit ak yéefarit wuute ba tey nu ñuy doxee ci ginnaaw bu pas-pas bi jàllee muy yéefar bi day dajale alal ak nu mu ko mën a dajale mel ni kuy taxan guddi jullit bi dañuy soxla ci moom buy wut alal mu sàmmoonteeg yoon wa yàlla bëgg nga wute ko alal damay wax jamono bu ne ni sénégalais dañoo am mbaax lool tabe lool am jikko ju rafet ci lañ gën a bëgg mooy am alal ba terale ko nit ñi teraanga rek lañ soxla loolu moom day jikko sénégalais bu ne ku ci wut alal ku ne la la gën a ñor mooy am ko ba terale ko nit ñi waaye nag lu lu am solo lu mat a bàyyi xel te ñu bari duñ ko bàyyi xel mooy ne yàlla bari mu laa laaj ëllëg foo dugal alal da lay jëkk laaj foo ko jëlee boobu baax nag léegi différence boobu nag mooy am diggante jullit bi ak yëfal bi yonent bi dafa wax ne kenn du poussé ci kanamu yàlla te du laaj na la ñeenti mbir sa dund bi ci lan nga ko jeexal sa ndaw ci loo ko jeexal sa alal foo ko jëlee ak foo ko dugal waaw yu daamat di bàyyi xel di bàyyi xel ci ne dëgg la teraanga jiñ bëgg ñun ba tax ñu wut alal waaye du caagee ne noo ko wute baax ndax yàlla wala mu la laaj fi nga ko dugal da lay jëkk laaj foo jëlee mu mat di bàyyi xel toujours nag waaye ma ni jullit bi dajale alal sonn ci lool ay at ba dajale ay milliards te milliards yooyu mu mën ko financé ci genn ngoon kooku danañ xam ne wututoon àdduna la mu doon sonn ngir àdduna du woon pour àdduna waaye pour yàlla la da doon wut ngir lum wasiila bu mu jaar pour wut ci gërëm yàlla mag ñi toppal Sëñ Tuubaa dinañ daan sonn dañ daan bay di commerce lu ne def nañ te jubluwuñ ci dara lu weesu saa bu sëriñ bi soxlaa rek ñu mën a taxaw ci itam yooyu itam yooyu kon lañ doon sonn du woon pour adduna waaye pour ngir wut ngërëmu yàlla moo tax ñuy seen adduna jënjoon wut du waaye dañ koy wut pour ngërëmu yàlla mm-hmm. ma ne bu fekkee yoon wi ngay jaar pour am am koom yoon wi ngay jaar pour am am personnalité pour am alal am am pouvoir bu fekkee yoon woowu yi dàqoonti wut yoon bi suñ borom rëdd jullit bi daf ko war a suub na wut alal na wut pouvoir ndax waaye saa boo demee nag ba yoon wi nga wi ngay jaar wuute ak yoon wi yàlla rëdd bu boobaa nga des doon ak faqiir ñàkk yoroo dara di yalwaan sax moo gën bu boobaa nga des néew doole lool ñu di la dimbale moo gën moo gën ngay jaar ci yoon woo xamante ne boo dajalee da ngay dajale ba noppi it daane yàlla dala cay fekk ëllëg kon doole ji wut ko farata la ndax yonente bi nee na jullit bi am kàttan moo gën te moo gënal yàlla jullit bu néew doole daane ñun ñëpp nag baax nañ waaye nag kee moo gën te nag suñu borom dellu wax ne wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa lu ngeen mën ci kàttan rek na ngeen ko préparer pour seen diggante ak yéefari te ku xam na ne alal doole la pouvoir doole la xam-xam doole la kon jullit war naa wut alal ngir am doole war naa wut pouvoir pour am doole war naa wut xam-xam pour am doole xam-xam bi buñ ko yamal rek ci xam-xamu diine xam-xam bi yépp dañ ko soxla ngir ngir ngir jàllale diine am na ku ñuy wax Fathallah Goulam ci Turki gi la nekk xidma bii la jël di ci dox am benn taalibe mu tabax immeuble bu mag mu seet si ko ni ko waaw immeuble bi baax waaye nag boo ko defoon mu jiitu ji la ëllëg di dina baax yabal ko mu mu koy def mu jiitu ji ma ëllëg mu ne ko danga koy def ab jàngukaay doomi jullit di ci jàng pourtant imaam boobu jànguñu fa alxuraan jànguñu fa addis xam-xamu technologie bii dañu fay jàng waaye doomi jullit yi lañ soxla mënuñu ko ñàkk la leen di jàngale foofee loolu lépp nag di ko xam ci liggéey yàlla di ci baax xam ne liggéey yàlla jërul nga doon ab médecin bu mu jàng toxoo ci ni kon naa dem jàngi alxuraan jërul nga doon ab baykat mu jàng toxoo naa dem ci càmm loo nekk rek foofa soxla yàlla soxla ko mën nga caa liggéey moo tax sëñ Mourou Moussa sëñ Mourou Moussa daan wax ni daan wax ni yoonu sëñ Touba sëñ Touba ci ñeenti mbir lañ koy liggéeyal ci jëkk mooy borom alal ju liggéey alalam ju lew te bëgg koo def ci yoonu alal jooje sëriñ Touba soxla na ko ci biirum liggéeyam ñaareel ba mooy ndaw lu am kàttan te dooleem jooji mu bëgg koo jeexal ci yoonu yàlla doole jooju sëriñ Touba soxla na ko ci biirum liggéeyam. ñetteel bi mooy ku am xam-xam bu sell bu rafet te xam-xam boobee mu bëgg koo jaaxal ci yoon yàlla kookee Sëriñ Tuubaa soxla ci biir liggéeyam kon soxla nañ ci xam-xam soxla nañ ci àll soxla nañ ci xel mu rafet mooy ñett bi am ku am xel mu rafet te bëgg koo liggéeyee la yàlla xel moom yi Sëriñ Tuubaa soxla ci biir liggéeyam kon yii lu ci nit am rek mën naa toog fa mu toog liggéeyal ci yàlla ba am ngërëmu yàlla moo tax jërul sax déplacement jërul tuxoo fenn dem ci leen waaye nag itte ju kawe dëgg dëgg dëgg dëgg mooy bul aj fenn sa itte fudul ci yàlla sab dox bul taxaw mukk te agoo ci yàlla ibnu xayam day wax ni itte ju kawe dëgg mooy nit ki aj itteem ci yàlla di ko sàkku-sàkku bu dëggu te sellal borom itte jooju nag du mën a tee def ndànk du mën a tee muñ te amul li bëgg waaye nag danaa am li bëgg am gu gaaw ngir ku noppaluwul guddeeg bëccëg suba ngoon di wut li ngay wut foog suñu borom moo lay attan te yàlla ku neex a wut la moo moo moo gën a yomb wut àdduna fi ñu toll nii ndax sëñ Tuubaa dafa wax ni addunya mudbiratun laa yudrikuha talib wal axiratu muqbilatun laa yafutuha harib mu ne alaxira dafa wo adduna dafa wane ginnaaw di daw kenn mënu ko dab ba dax alaxira dafa dëgmal di ñëw te kenn mënu ko daw ba raw daan ne walaakin aksarahum laa ya'lamuun yàlla it wut ko moo gën a yomb wut àdduna ngeen dafa wax ne man aataani yam si ataytuhu hadwalatan képp ku dox jëm si ci man ma ñukk pour gàttandu la gàttandu yàlla nag ku ne ci noonu boo ko seetlu da ko gis ngir ku ne da nga xam ne li nga def si diggante si borom dimbalee na la taxawoo la aare la noo xam ne da nga xam ne lii jëfoo ko ndimbalam la mooy gàttandu googu yonent bi sama sama wax kon ki gën a kawe ci nit ñi itte ëpp ci daraja mooy ñi nga xam ne seen bànneex dafa nekk ci xam xam yàlla ak sopp yàlla loolu nag danañ ci xam ne ittey Sëriñ Tuubaa ju kawe ndax dafa wax ne lépp ma doone ko ne walam azal munsu xaqaltu taaliba maarifatan billahi jalla xaaiba musuma dañ bu ma xelloog léegi di sàkku ak xam yàlla fa jultu bayna al ulama wal awliya may wëreelu ci diggante borom xam-xam yi ak nit yàlla yi yépp rek ànd ak sama yéene ak sama jëf ak sama wax lépp ngërëmu yàlla loolu rek laa soxloon ak xam ko ci loolu it la yar ay doomam yar ci magi murit yi murit bu ne it mu digal la itte ju kawe jooju ndax dafa wax ni ab murit wërta bëgg lu dul ngërëmu yàlla itil murabbi laa yuridu abada xayra rida rahmaani xay su xasada suñ bay jaxat di wax ne xarit yàlla yombul te moo am njariñ wutal yàlla yow mii ba dee mbaa nga am li tax yàlla yombul ku koy wut te am ci lëf soxla doo am ci moomus ngërëm dalay woon mayam yépp te yër sa xol mayul dëgg muy gis ci sa xol mañam mbañam te foo gis ku saytu yëfam kat na lay gënal ay yëfam ngir ku ne gën yëfam te ak may lu rëy rëy ci xol ak ci bët jërul dëpp kuy dëpp dëppoo ndabam amul fenn foo xam ne yàllaa fayam amul fay mayam yam yëraleew tigam muy jàngale ñàkk ittee ni xarit dëgg yow bul defu tëddkat ndegam bëgg ngaa def nitu tedd nga ndegam bëgg ngaa tedd bul tedd yow te woppoo bu wér ndax ndaxte kuy faaxu nga bàyyil faw biddanti te yeewu njël ku dul yeewu njël kat du jot cant ga na nga yeewu yow jëkk waxtu fajar di fàggu yi ngërëm nag ba jot noddu ga te boo dee nelaw nag ba waxtu fajar nga jóg yeewu dem julli biddanti nga mhm. nelaw lekk wax néewalal yett yii te boo néewalee yett yii kat nga nelaw tuuti wax tuuti mos tuuti nii la dag yépp daa def ba far ndomb ga defal nii ma wax baa nga jëbbal sa mbir ka def nii ma wax kon ba tey wàcc nga ku dul gis te jox ab tumam kay gisit du woo loolu neefaaku yow yegg nga mhm. kon ñoom dégg nañ njàngaleem Sëriñ Tuubaa ba di ko jàng